chers téléspectateurs de la 7TV ñu ngi leen di nuyu amaat mbégte ak contenté di leen dalal sur les antennes de la 7TV dans votre émission avocat émission bi nga xam ne mooy traiter les questions aujourd'hui les cas mais aussi l'actualité de manière générale tey nag dañuy ñëwaat ci ñaari droit wala sax ñaari liberté muy la liberté d'expression mais aussi la liberté de presse parce que ñoo gis ne fii au Sénégal ce sont des libertés yoo xam ne constamment violées constamment bafouées kenn amatul fit wax dara le sommet sax mooy Maïmouna Ndour Faye nga xam ne journaliste une éminente journaliste boo xam ne dañ ko agressé sauvagement quelqu'un boo xam ne dafay def liggéeyam selon les règles de l'éthique et de la déontologie mais aussi koo xam ne dafay respecté bu baax a baax a baax les codes de la de la presse sénégalaise yëpp naaw ko mais elle a été attaquée sauvagement pour ses pour ses émissions yi nga xam ne daf koy daf koy def donc ci loolu ñu ci dalal ki nga xam ne mooy Oumou Kaltom Sarr nekk membre RADDHO moom la ñu dalal tey umu Kaltom ñu ngi nuyu bàyyi leen nga nuyu les téléspectateurs maa ngi fay Amadou di nuyu téléspectateurs yee ak téléspectatrices su 7TV yi yëpp di leen masawu aussi si di dal si seen kaw di ñaanal may mën a mu génn ci jàmm te ñi nga xam ne aussi ñoo def ñaawteef bi bu dee kenn wala ay nit aussi yoon teg ci ñoom loxo te def li war ci ñoom. moom moom la moom la ñëpp moom la ñëpp di ñaan te je pense que la justice actuellement mi ngi def liggéeyam pour. xam exactement les auteurs de ces mal malfaits tey jii nii bu ñu ñëwaat un peu koy waxaat si si au début de ma de mon introduction tey jii nii dañoo gis ne au Sénégal liberté d'expression liberté de presse dafa bëri problème yoo xam dañ ko ci gis may mun a c'est vrai moo fi mujj mais gis nañ autant de journalistes agressés d'autres intimidés ñu gis tamit lors des manifestations vraiment beaucoup de journalistes yoo xam ne ils ont été brutalisés par les forces la liste est très très leen jàpp pour de délits délits d'opinion tey jii nii fan la ñu taxaw ci ñaari liberté yooyu noonu umu kaltam xam nga ñaari liberté yooyu buñ koy wax la liberté d'expression et la liberté de la presse dañ koy delloo si si cadre bi nga xam ne Sénégal moom ci boppam moo bokk wala xaatim ay textes internationaux te li ko njëkk a wax sax mooy la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 avait déjà bu wax ne nañu fexe ba liberté d'expression ak liberté presse am ci dëkk yi ñu amaat aussi la déclaration universelle des droits de l'homme moom it mu ñëwaat si wax ko euh, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 9 ñëw na bu baax si li nga xam ne moom mooy la liberté d'expression mais Sénégal ci constitution am moom it daf si taxaw wax ne nit ñi dañu war a wax dañu war a am liberté boobu parce que wax sa xalaat loolu defe naa ne lu war la ndaxte nit fu mu nekk war naa mën a wax xalaatam mais ñu gis ne loolu yépp bañ ko amee ci Sénégal ba pare am li nga xam ne aussi mooy code de la presse bu bees bi ak ni dëkk yi di avancer ak yeneen convention yoo xam ne ak ay déclaration internationale wala régional yoo xam ne am na fi aussi organisation de presse yi bokk ci ñoom ñëpp xaatim jëmale foofu kon nguuru Sénégal fa war a jël ay responsabilités mais aussi respecter engagement yi nga xam ne moom la def mais ñu gis ci Sénégal par exemple léegi wax sa xalaat dafa jafe boo waxee sa xalaat yaa xam ci sa page Facebook wala foo ko munti wax nga gis nit bi taxaw ci sa mur di la saaga di la wax ay wax yoo xam ne tegginewul wala sax ñu terroriser la baa ñu dem wut sa numéro di la woo di la intimider loolu bés bu jot des citoyens simples sans pour autant ñu nekk ay journalistes dañ koy vivre mais ñi nga xam ne nag ñoo nekk journaliste ñoom la ñu gën a sonnal parce que da ngay léeg-léeg damay toog sax di ree da ngay gis nit jël téléphone am dugg ci benn émission rajo mais attaquer la presse. nu mu ko neexee. xamoo ci li ñuy wax dara yow xamoo code bi euh, kii def presse bi xamoo ci benn article mënoo cee wax dara mais nga bëgg cee joxe ay leçon de morale loolu aussi des fois je me dis parce que presque bi mënul tontu ñëpp. mënul wër di tontu ku nekk nit boo xamul da ngay régler ba nga dem xam. mais aussi il faut ñu arrêté nit ñi ñu xam profession la te profession dañ ko war a respecter. du profession bu nekk nit war na cee am lu muy def sinon kon jaratul ñu dem jàngi jaratul ñu dem jàngi ko bu fekkee ne tey par exemple ku nekk médecin ku nekk war na jóg kon ku ñu joxoon ku nekk nga faj ku feebar bu mu génn ci loolu defe naa ne aussi il faut que sénégalais yi am une raison gardée Oum Kalsoum li nga wax dafa am solo parce que sànq yaa ngi rappelé un peu les déclarations yi nga xam ne au niveau international ba ñëw au niveau national ñëw ci constitution bi ci préambule bi ak aussi ci article yi nga xam ne ñoom ñooy garantir liberté de presse ak expression maintenant est-ce que l'état du Sénégal tey jii bu ngeen def la constat est-ce que l'état du Sénégal nga xam ne moom moo war a garantir ces ces droits là est-ce que mi ngi koy garantir effectivement aussi. l'état du Sénégal garantir ko ni mu ko waroon taxawee parce que moom ci boppam dafay def sélection selon ngay wax li nga xam ne moo neex gouvernement bi tu es bu fekkee ne nag yow alors que le journaliste dans profession il doit être critique Euh, dañuy faral di wax li ngeen di wax en journalisme que euh, les faits sont réels et les les les, les commentaires sont comme ñun li ñuy wax en droit de l'homme que les faits sont réels mais les commentaires sont fondés parce que il faut ab convoquer les textes juridiques yi yi lay permettre nga mën ko wax mais ñoom bu fekkee ne dangaa wax jëmale ci li nga xam ne loolu lañu ñu bëgg a dégg dañuy ne kon presse bi mooy bu baax bi defe naa loolu moo fiital opinion bi à mon niveau man noonu laa ko analyser ne loolu moo fiital opinion bi ba ñuy tëj ñoom tam di attaquer presse bi presse nag liggéeyam lay def boo jotee information ba nga def sa liggéey ba recouper ko xool ba xoolaat yow boo ko génnee aussi nit ñi dañuy xam ne yow sa liggéey nga doon def foofu nga mën a mais du ñu jël rek nga daal di féetale ñu gaawantu léeg-léeg nga wax loo xam ne neexu leen wala nga nekk dans une presse privée ñu daal di la dal offense chef de l'État wala diffamation mu indi ay problème alors que c'était des questions yoo xam ne qu'on pour éviter parce que loolu mënoon naa ñàkk parce que da ngay xool ne yow yaa ngi def sa liggéey kii tamit mu ngi def liggéeyam te citoyen dafa war a xam parce que alalu réew mi dañuy liggéeyee xaalisu contribuable la donc bu ñu ko dugalee foo xam ne jaaduwul bu ko presse bi waxee mais war nañu mën a nangul loolu aussi parce que loolu mooy baromètre bi tax nit ñi daal di ne ah kon problème am na bu fekkee ne aussi dañ koo def fu ñu warul def wala ñu jox liggéey ba kañ ko warul jox mais presse bi moo mën a alerter parce que citoyen bi mënul nekk fépp pour mun a contrôler vérifier li nga xam ne moom moo am donc presse bi moo ñuy dimbali ci loolu te presse bi pour mu mën a am loolu moom dafa am droit parce que comme ni ko citoyen amee l' accès à l' information accès à l' information boobu nag citoyen bi am na ci droit mais moom liggéeyam moo gën a tax moom war a mën a am accès ba pare mën a protéger source yi nga xam ne ñoom ñoo ko koy jox loolu je pense que ci niveau boobu ñun ak euh, presse bi ñooy nuroo parce que défenseur droits humains bi aussi dafa am accès ci yenn information mais day protéger protéger source yi ba nga xam ne pour mën a def liggéeyam indi leeral li nga xam ne moom la ñu war a leeral mais bu fekkee ne saa yu ñu waxee nga ne ah kii daf ma contre wala lii tant que ñu ngi am esprit boobu defe naa ne ci faagaagal aussi presse bi rek la ñuy jëm dynamique boobu nag état mu ci war a dimbali. am ci taxawaay bu am solo mais taxawaay boo xam ne dafay garde dafay xam ne ñii seen liggéey lañuy ñuy def ba pare mu respecter aussi

nga xam ne moom mooy scène de manifestation yi. absolument defe naa bu mujj bi ñu ci gis mooy bi sit-in bi amoon devant Walfadjri les images sont parlantes nit ñi gis nañ ko euh, journaliste bu taxaw di def liggéeyam nga nga dóor ko. parce que nit mun na day def liggéeyam yow dañ laa jox ordre en tant que force et de sécurité mais mun nga ne jógal fii peut-être ordre boobu lañ la jox mais joxuñu la ordre pour di dóor nit ñi mais ñoom dañuy jàpp ne ñoom pour wane ne seen chef que ñoom dañuy liggéey seen chef aussi pour wan chef de l'état ne moom day liggéey donc dafay wax ne nañu brutaliser nit ñi alors que loolu c'est c'est interdit même bu dee un citoyen simple on ne peut pas le violenter mm, on ne mm-hmm. mais astamaak nag le journaliste qui protégé parce que li ñuy wax mooy la convention de euh, le conseil des droits de l'homme dafa wax ne nañu assurer la sécurité des journalistes sur le terrain te loolu état du Sénégal xam na ko force de défense et de sécurité xam na ko parce que ñoom ci seen biir sax am nañu une division qui s'occupe de l'information et de la communication alors que ñoom tout le temps ñu ngi dans le système de Nations Unies di fa liggéey di envoyer des éléments xam nañu parce que bu ñu génnee dañuy respecter normes yi pour mun a dem ci mission yooyu remplir seen fonction avec euh, brio mais pourquoi bu ñu nekkee si dëkk bi duñ ko mën a def. duñ ñoom ñoo ko tey. Mm. problème bi mooy aussi je pense que euh, ñi ñi brutaliser yëpp comme euh, Bousso Anne l'a fait il faut que les gens portent plainte mm. et on ce jour-là quels sont les éléments yi nekkoon devant Walfadjri et ils doivent aller répondre de leur actes mm. ñoom xam nañu ñu ñu fa tegoon. dëgg la tey jii bu ñuy bu ñuy ñëwaat un peu ci liberté de presse liberté d'expression parce que dès l'entame de mes propos maa naan constamment violé constamment bafoué mais tey jii nii je pense que ni de l'autre côté gis nañ population aussi di xaw a agressé li nga xam ne mooy mooy les journalistes di li nga xam ne dañuy def seen liggéey mais boo xoolee les agressions ci bi nga xam ne moom moo ko garantir mais la plupart les agressions viennent de moom moo ko garantir mais la plupart les agressions viennent de yaa ngi koy wax ku farak état amoo problème ku farlu ak ñoom tu as des gis nañ nombre d'arrestations yi nga xam ne dafa am ci les journalistes gis nañ les intimidations gis nañ les coupures de signal aussi de certaines télévisions donc agression yi tey jii ak violation yi ça vient plus de l'État alors que moom moo ko waroon garantir. absolument xam nga li may wax rek l'État moom mooy xaatim toujours moom moo ñu war a ñun ñëpp euh, a ñun ñëpp jàppale. mais moom ci boppam. comme ni may waxee day xool li ko neex. donc et puis loolu baaxul parce que culture boobu ngay def. ñu toog à un haut niveau di si waxtaan on pousse les gens à violenter d' autres personnes alors que ce n'est pas normal même gis nañ ko fii sax au-delà de l' état y même euh, on peut dire euh, des partis politiques ou bien des mouvements sectes et kenn du leen laal parce que tout simplement ils se sentent protégés loolu nag kumba am ndey boobu kumba amul ndey boobu moo jaaduwul dans un pays boo xam ne on parle d'un état de droit parce que état de droit dafa am lu muy laaj état de droit dafay laaj égalité égalité de tous les citoyens mais dafa am ay profession yoo xam ne dañ leen war a protégé parce que risque bi ñuy jël ay la nature de leur travail moo tax ñu war ko mën a protéger mais bu fekkee ne état dangay wax lu ko neex rek lu ko neexul euh, le ministre de la communication ñëw dagg sa antenne tëj alors qu'on a mis des institutions de régulation mhm. yoo xam ne ñoom ñoo waroon def liggéey boobu finalement on ne comprend plus mhm. qui fait quoi la loolu tat aussi Mhm. defe naa ne respect yow institution yi nga taxawal da nga leen war a jox cër. maanaam le respect des institutions. le respect des la presse aussi obéit y a le CORED. Mhm. ah y a la CAP et cetera ils ont même y tribunal des pairs. Mhm. je pense que à votre niveau aussi y a des yoo xam ne permettre na nit ñi ba bu kenn wàccee yoon mais presse bi day taxaw ne ko yow tam da nga wàcc yoon. ñu war a mën a encadrer loolu yëpp nag mais dañuy gis ne on bafoue. et on arrête euh, tëj leen. ba nit ñi yuuxu ba wax après ñu génne leen et loolu aussi ça done une mauvaise image Euh, ci suñu dëkk te loolu baaxul parce que Sénégal euh, am na ay taasi ginnaaw xamuluñ ko woon image yooyu mais année yu mujj yi mhm. quand euh, notre image a été égratignée égratignée je pense que ni li ci gën a bëri mooy li nga xam ne moom la ñuy gis maanaam la violation xam ne des droits et libertés fondamentaux li nga wax dafa am solo un peu parce que ci wàllu institution je pense que la presse aussi am nañ des institutions comme ni ko yàlla CNRA mhm. et cetera et cetera mhm. mais tey jii nii boo xoolee aussi un

yor micro sans pour autant ñu gën a comprendre les règles d'éthique et de déontologie yi nga xam ne moom mooy régir la profession mm-hmm. nit nag métier doo ci duggee noonu parce que comme li may wax bu doon médecine du ku nekk lañ koy jox mm-hmm. kon journalisme aussi du ku nekk lañ ko war a jox donc bu fekk ne da nga am foo war a yam mais am na boo téyee micro bi am na aussi fi ngay war a yam mm-hmm. pour xam li nga war a wax mais loolu aussi organes yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk institution yi ñoom ñoo war a encadrer fexe aussi ba patron de presse yi euh, respecter normes yi ku nekkul journaliste euh, waral ñu peut-être jox yenn niveau yi de de responsabilité de wala yooyu nga am fooy yam ba ñu lay jàngal di la encadrer parce que tey jii bu ñu xoolee le monde audiovisuel c'est ouvert et aussi ouverture boobu des fois aussi ça amène des dérives waaw donc je pense que à l'interne il faut aussi ñu mën a assainir milieu bi xool ba nga xam ne kiy ñëw te xamagul ñu jàngal ko ba mu mokkal bu mokkalee ñu door ko mën a bàyyi mu dem. door bàyyi mu dem tey ji am nañ li nga xam ne moom la ñuy wax maanaam la presse en ligne la presse en ligne aussi c'est problématique parce que y a des yoo xam ne dañ ko teg je pense que ni war nañu mm-hmm. la presse aussi buy organiser un secteur organe médiatique yi nan la ñuy organiser woo leneen ak leneen mais dis dañoo gis la prolifération actuellement des des des des presse en en ligne tey ji mën nañ njort ne vraiment presse en ligne boobu ak tey ji ni mu amee impact mais boo xoolee dans les faits ci organisation organisation ci statut est-ce que il respecte même les normes vraiment du code de la presse ci wàllu organisation ci wàllum liggéey bi aussi. waaw xam nga loolu moom comme nit ñi li ma doon wax léegi rek la il faut que ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo ŋànk le secteur de la presse. ñoom ñoo ci war a taxaw gën leen rappeler à l'ordre parce que je pense que la presse en ligne aussi am nañu ñoom benn euh, organisation interne je pense c'est appel mhm. avec euh, Lisa mais war nañu gën a taxaw xool. liggéey bi nga xam ne seen élément yi ñu ngi koy def sur le terrain mhm. parce que nous sommes dans un monde euh, tey jii bu internet mhm. donc nit ñi léegi ubbi sa téléphone moo gën a yomb dem déglu rajo baa nga jënd journal baa nga dem télé parce que foo toog boo amee connexion yaa ngi xool mhm. donc cette presse en ligne là elle est aussi devenue tey ci benn médium bu am importance donc mënuñu ko bañ a et à l'instant T tu information moo tax yenn dëkk yi nga xam ne dañuy nekk dans des conflits ou des troubles souvent aussi dañuy xaw a serré foofu pour bañ waaw l'information sorte vite mm-hmm. alors que on ne maîtrise pas parce que xam nga comme li may wax se l'image du pays mm-hmm. moo tax war nañ ko xoolaat gën ko ñoŋal xam ñi fa nekk ñu jox leen le rudiment nécessaire et ne pas laisser n'importe qui aussi parler de certains sujets qu'il ne maîtrise pas wala def un boo xam ne professionnellement ce n'est pas comme ça. yaa ngi koy wax l'internet un peu c'est un élément boo xam ne dafay mm. permettre l'accès à l'information c'est vrai l'information passe vite sur l'internet mais de l'autre côté dañoo gis ne aussi violation yu bëri bëri ci wàllum liberté d'expression liberté de presse donc ci l'internet lay lay lay jógee tey jii la ñu a defee l'équilibre entre ces deux entre ces deux éléments c'est un élément boo xam ne vraiment ça permet l'accès à l'information mais de l'autre côté aussi violation yi nga xam dañuy gis ci wàllum liberté d'expression liberté de yëpp ci internet lay jógee aussi mm-hmm. y a y a y a y a beaucoup de violence numérique mm-hmm. euh, man je pense que liñ ci war a njëkk def mooy ñu yaraat nit ñi parce que tout est problème de comportement mm-hmm. nit ki moo nit ñi ñoo yaruwul am na ñoo xam ne yarawuñu ba xamuñu lu ñuy naka la ñuy utiliser les réseaux sociaux donc foofu aussi ñenn ñi dañuy jël seen page rek def ko page u saagakaay page wax lu ñaaw tudd nit parce que le fait que même nit def benn émission wala lenn neexu la je pense que nga jël turam dem ci sa page tudd ko pour man c'est pas bien c'est pas correct tu peux analyser tu peux proposer mais dafay am war warma ba pare c'est dans la courtoisie et dans l'élégance parce que nit ki dafay am nu muy waxee nu muy gisee mais nit ñi dañ koy jël pour wane ne peut-être xaw ma je ne pas xaw ma peut-être c'est les vues jeune ne pas pas comment waaw parce que nit ñi dañuy wut buzz mais rek wut buzz ci anam boo xam ne tegginuwul pour man loolu du buzz parce que dañoo war a nekk de dans un monde de construction avec des idées nit ki wax na lii peut-être dàkkuloo si yow indil beneen idée mais tu peux ouvrir le débat sur ta page ah ne nii ak nii mais au lieu de rester tout le temps critiquer critiquer saaga nit ñi am xamuñu mag xamuñu kenn xamuñu autorité loolu aussi defe naa ne euh, dëkk bi moo laajaat ñu ko yar. est-ce que dañu waat un peu foofu li nga xam mooy la responsabilité de l'État aussi parce que. la de de l'internet la régulation aussi de l'internet c'est la responsabilité de l'État. la responsabilité de l'État. Mm-hmm. en plus ni ngay dem ba sauvegarder les données personnelles. mais l'état aussi dafa war a euh, réguler waat loolu yëpp xool ko naka lañ koy defee mais en même temps aussi l'état viole euh, nañuy wax les données personnelles des gens hmm, parce que léegi ñi donc euh, à tout moment di capter téléphone jàmm xam lu si nekk yooyu yëpp aussi je pense que dafa laajaat ñu toogaat ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi yëpp ñu wax ak usager de de l'internet naka lañ ko war a defaatee nit ñi xam ko comprendre ko noonu pour que ñu bañ a def ay dérives yi nga xam ne ça va rendre notre société encore beaucoup plus malade. encore beaucoup plus malade tey jii dañuy gis un peu je pense que ci la ñuy bëgg terminer la presse encore on dañuy ñëwaat un sur la presse sur les sur les journalistes nekk na liggéey bu bu metti trop trop trop parce que gis nañ les attaques dafay ñëw de partout tey jii nii bu leen protéger comment faire pour les protéger parce que d'autant plus on a le code de la presse qui est là loi la wax aussi yi nga xam ne moom wax donc dispositif juridique bi il est là il est bien ñëpp a ngi gis mais les faits comment faire vraiment pour protéger ces journalistes d'autant plus que on est période électorale actuellement seen rôle dafa primordial ci li nga xam ne mooy la stabilité du képp koo xam ne yaa ngi nekk force de défense et de sécurité balaa ñu leen di déployer sur le terrain dañ leen war a wax que dans le le travail yi ñuy def sur le terrain ñoom ak presse bi ñooy bokk espace bi loolu je pense que ñoom ñi nga xam ne dañuy dem dans les pays en conflit souvent dañ koy xam ba nga xam ne yow ni ngay sóoraale sa bopp noonu ngay sóoraale peut-être le journaliste noonu ngay sóoraale le défenseur des droits humains bi nekk à côté. parce que en plus dogguma la tey ba dernier les dernières manifestations gis nañ y avait un journaliste blanc gis nañ traitement bi ñu ko bi ko defal ak traitement bi nga xam ne moom lañ defal les journalistes sénégalais. waaw parce que xam nañ ne tubaab bi moom boo ko laalee rek. Euh, problème mun naa am. du problème yow ak moom mais problème mu ay dëkk la ak suñu dëkk. parce que bu fekkee ne par exemple c'est un pays de l'Union européenne donc Union européenne bi yëpp mooy jug contre le Sénégal moo tax foofu ñoo la ko gën a xam ni ñuy moytoo laal tubaab bi noonu la ñu war a mën a moytu laal sénégalais bi te xam ne danoo bokk benn espace da ngay def sa liggéey muy def sa liggéey mais en même temps force de défense et de sécurité bi daf ko war a protéger parce que kii dafa nekk fii pour le droit à l'information te citoyens donc daf ko war a protéger mais doo ku nekk mën na def liggéeyam ci espace bi sans pour autant problème bañ a am mais dóore kajje saaga bundu xataar bi pour lan waaw loolu loolu moom ce pas normal. la violence et la haine aussi dans ce pays. je pense que ne loolu tamit beneen facteur la boo xam ne ça explique un peu traitement bi nga xam ne moom la ñuy defal les journalistes ak ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain ak les hommes ak les hommes de médias tey jii nii bu ñuy waxaat est-ce que nekkul benn ndëpp national lañu def c'est-à-dire entre les l'État la population ñëpp ñu xam ne les journalistes seen liggéey la ñuy def nekkuñu fi pour kii nekkuñu fi pour pour waaw loolu aussi moom moom laa doon wax sànq xam nga journaliste bi toujours bu bu nekkee ci position euh, neutralité objectivité ah respecter les les règles d'éthique foog naa aussi mun na bañ a am problème et je pense que aussi un des problèmes aussi des fois mun na nekk euh, jox micro bi aussi ñenn ñi nga xam ne peut-être mun nañu bañ a maîtriser xam lu ñuy wax moo tax euh, souvent aussi je pense que yenn direct direct yi ça peut toujours euh, se retourner contre les médias nañ koy xool bu baax peut-être il faut faire un léger différé ba xam nit kiy wax nii ci lan lay wax et puis kiy wax ci ban qualité ban titre lay waxee parce que am na ñoo xam ne aussi ils son vraiment incendiaires wala li ñuy wax yépp ay safaan lay nekk mais ci kaw loolu euh, Sénégal ci boppam moo soxlawaat ñu yaraat ñu ñun ñëpp nag ci kaw ba si suuf léegi nag xaw ma ko ñuy yaraat parce que bu bopp bi feebaree forcément tànk yi ba ci suuf ñëppay feebar léegi kan kan kan moo mën a taxaw fii léegi fu ñu toll nii tembee wax nit ñi may ko cër boobu déglu ko foofu aussi donc y a problème dans ce pays. le mal est profond. waaw il est profond il est trop léegi nag boobu nag foofu nag la war a taxawaat moo tax ci période trouble bii ñu nekk impasse bii ñu nekk actuellement je pense que. Euh, sénégalais bu ne góor ak jigéen mag ak ndaw war na mun a xoolaat naka la ñuy def ba li ñi am ni li ñu fi bàyyi loon mu nekk dëkk bu neex lool ñu war ko mun a téyalaat suñu bopp wane ne ñun suñu dëkk bi dañ koo fonk te dañoo bëgg mu gën a avancé mais waruñu seetaan mu yàqu parce que li fi am ci jamono yu mujj yi jikko yàqu na laa haine s'est ci biir kër yi ci koñ yi mbedd bi sa voix entre yéen voisin boo leen bokkul parti sax ñenn ñi mun nañ songante dans les bus et loolu yëpp mënoon naa ñàkk l'adversité politique a toujours existé depuis avant Senghor bu ñu la koy expliquer ci histoire depuis temps bu ñoom Blaise Diagne di wut naka la nit ñi daan comporté woo au niveau de la ça a toujours existé mais lu tax ñu ñëw tey jii nii mu dégradé wu c'est parce que quelque part euh, l'État ne joue a ah, plus oui a failli à ses responsabilités parce que moom la ñu dénk te moom buñ ko dénkee aussi dafa far moom bu dee sama nit ak sama parti rek la far mais ñeneen ñi donc danga leen di bàyyi noonu ñu mel ni ay bàyyi ma te ñëpp la waroon boole mais tey jii da ngay gis ne même moi je vois dans les certaines manifestation bu presse bi ñëwee sax pour mu mun a jël mais da ngay gis yenn militants yi dañ leen di bëgg a sonal mais pour la au nom de alors que dafay ñëw pour def liggéeyam. que mu neex la mu bañ la neex on a vu ici beaucoup de choses passer. merci beaucoup merci beaucoup Oumou Oumou oh. Kalsoum je pense ci buñ ci wax duñ ci pare parce que je pense que ne la presse actuellement dafa nekk ci situation bu vulné vulnérable très très vulnérable alors que vraiment liggéey bu am solo la ñuy def ci li nga xam ne wala Sénégal tey jii ku yeewu vraiment soxla nga information. information c'est un droit donc ñoom ñoo informer li nga xam ne mooy la population donc les Sénégalais war nañ mën a gën a comprendre cela xam ne liggéey bi ñuy def solo ñu ngi lay jaajëfal la jox la kàddu gi nga def sa dernier mot ñu doog clôture. waaw maa ngi lay fay tamit di di di gërëm di wax rek ne nañu ànd ak dal euh, te réew mi aussi yoon moo ko war a doxal te bu ñu tegee lépp si yoon bañ a def kumba am ndey kumba amul ndey ñu tegaat ñu ñun ñëpp sénégalais yi ku ci wàcc yoon ñu xamal la ne dangaa wàcc yoon. mais bu boobaa aussi defe naa ne dinañu am réew moo xam ne aussi réew mu muy mën a am njëriñ parce que dañoo yor ay njaboot te génération yi di ñëw mérité wuñu vraiment euh, mag ñi ñu am tey kon mag ñi war nañu defaraat seen toogaay ci biir pénc mi mën a bàyyil xale yi benn Sénégal bu stable merci beaucoup Oumou Kalsoum Sarr tey moom la ñu nekkaloon nga xam ne membre RADDHO la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme tey moom la ñu daloon waxtaan ak moom ci ñaari liberté yu am solo yooyu noonu ci wàllum démocratie parce que Sénégal démocratie la il faut que les Sénégalais xam loolu ci nag ci wàllum démocratie buñ ci nekkee ku nekk tu es libre de penser ku nekk tu es libre de donner tes opinions ku nekk tu es libre de s'exprimer donc librement donc nañu nangu diversité boobu noonu vraiment ci li nga xam ne mooy réew bu ñu nangoo diversité boobu rek je problème dootu fi am ñu ngi lay bu baax a baax remercier équipe technique bi nga xam ne moom lañ àndoon ci réalisation bi Amadou Ndankebe Fally ak aussi Khadissa ci montage bi ñu leen jox dig daje incha allah semaine prochaine ci benn émission avocat sur la 7TV merci beaucoup